Ahmed Ndiaye jërë ngeen jëf ku ruur sa bopp ci xetax mbaam yéey ko góor jigéeni réew mi duñu baax ci réew mi njiit réew mi moo ko wax wax jaa ci soleil nangu ko la sinekaay nañu lu jëm ci daganal ak ngóor jigéen ci réew mi njiit réew mi Macky Sall demee wu ca premier ministre bu Canada homosexuel munut a dagan ci Sénégal suñu société nangu ko suñu aada bëgg ko te it suñuy loi da koy tere Vox Populi nañu ginnaaw Barack Obama Macky Sall yamale na démb Justin Trudeau premier ministre bu Canada ci waxi ngóor jigéen nee ko di daganal ak ngóor jigéen ci Sénégal loolee mënut nekk suñu aada suñu diine da koo dàq te gisuñu dara lu ay mbaa lu ñuy sene ci loi yi tere ak ngóor jigéen ci suñu réew sursoi nañu booy seet ba ci biir coowal daganal ak ngóor jigéen ci réew mi borom du ma ne déet du ma ne waaw di Macky Sall démb moom nee déet mukk du fi amee lise ko gis ne taxawaaye moom Macky Sall dese naa dëgër ndax ba muy wax ci wolof wax ju leer nañ la ca xam le a dagan ci Sénégal waaye da doon raay wax ja ndax nee na fii ci réew mi dañu fi tere kuy fësal ay relation contre nature maanaam ay góor jigéen ak xeet yooyee waaye nag du tax ñi choisir dund loolee ñu leen di génnee ci réew mi Les Échos nañu lii la Macky Sall wax ci français Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne xët mu njëkk Vox Populi loolee lépp dafay gudd wax ji gudd gàtt moo di ak góor jigéen dee su ko fi daganal bu neexee yàlla ñu bàyyi waxi góor jigéen ñi te wax ci waxi pédophilie gi bëgg doon tëddee ay xale ci école de football Dakar Sacré-Cœur ñoom ñëpp kaso la fanaan biig tuumay abus sexuel sur mineur saay-saay ay xale yu foccagul moom lañ leen di toppee ñoom ñaar mu di Sylvain ak Guèye libé nee nañu daanaka ñoo bokk oto bu ñu dugg ba ñuy dem ci rëbës enquête dina kay nañu kii di Olivier Brice Sylvain doyen des juges Samba Sall moo ko mandat dépôt li ñu koy tuumal mu di mbirum pédophile waa ji di Olivier nay wax enquêteurs yi ubbil yéenekaay bi ci xale yi ñu ne da leen doon saay-saay am na ci xale bu am fukkeet ak juróom-ñaar nee na Olivier da ko am waaye massage mujj gi maase na leneen lu bokkut akub óom am na it si beneen xale bu toll ci fukkeet ak juróom-ñaar maanaam 16 ans bu ne enquêteurs yi Olivier Brice Sylvain mas na koo fanaanoo ci ab néegam Les Échos moo taxit moom waa ji far na fanaani ca kaso bu rëbës démb l'observateur nañu du moom rekk la kaso bu rëbës am ni gan démb muy moom Olivier di oustaz Guèye bu Wakam di Djidiack Diouf bu Jolof Band mi ñuy tudd ci coowal trafic de visa ñoom ñëpp kaso la ñu fanaan ñu yeewu yam ci Le Quotidien gis fa xibaar bu ñeel Lamine Koyta di waa faatoon ca Fatick yéenekaay bi nee nañu autopsie bañ doon def ci ab néewam résultat yi génn na la ca nekk moo di waa ji kenn dóoru ko mu faatu mort naturelle la maanaam faatoo ñëw mu faatu Soleil national dëggal xibaar bi ci xëta mu njëkk wax ñu ne dawalkatu moto coloniser suñum réew di Sénégal ba léegi jugu fi li tax mu bind ko mooy nee na entreprise yu bari yu nekk fii ci réew mi réew France la ñu fekk baax journal bi jukki ci banque SGBS CFAO Total Senac Auchan Canal Plus Orange Money Fon Roche ak Alstrom journal bi boole yooyee yëpp gis ne France ngar dajjoon na Sénégal Sénégal ab gouvernement am l'observateur nee am na ñaari ministre yu ca nekk yoo xam ne neexoowuñu duñu jaaroo ab taal mu di ministre économique finance Abdoulaye Daouda Diallo ak ministre du plan Amadou Hott ku ci nekk ci lii laa toll lii leen boole ba tax ñu dëkkee fantasiro journal bi nee nañu mbirum xaalis la li ñu naan les fonds communs indi coow li coow laa ngi ne cobbay ci lycée Kër Mbaba Jaxu ba nekk ca ñooro yëral xët mu njëkk Vox Populi benn professeur moo fa jam paaka ab élève am Touba Darou Salam Karo Savon de Marseille Alphé Expert Groupe Voyage Sengam Opalia ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye diko ko gërëm na ko noonu ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM Amadou Diallo bobak léegi police diko wër euh, ci euh, Ziguin Chor atum 2016 la na fa topé tout may boom ab gardien bu euh, këruk Sonatel ga ci Ziguin Chor bobak léegi kon ci ay xelu ndax dañ ko yóbbu woon ci hôpital psychiatrique bu Thiaroye mu dawee fa police ak diwaan ga nak dal dinañu gantal dakkal ay dawam yoyé walu xibaar bokk na ci lu tukkee ci manifester yi 3 février ci saint di garda bi ñeel ñaari responsable njiitalu union régionale pêcheurs artisanaux yu ndar euh, ñu nga euh, kon jamono yi ci commissariat central ab diwaan ga wàllu tiife ak saay-saay gune yi muy sëriñ ba ca wakaam di kilifa ci euh, Dakar Sacré Cœur yëpp daal nañ leen jàllale ci kaso bi mandat dépôt ginnaaw seen jaar ci kanamu doyen des juges def nañ seen panaan gu njëkk bi ci kaso bu rëbës ministère bi ñu dénk mbay mi wéy di weddi ne échec daa am ci campagne ren gi jëm ci njaam gerte gi kenn ci conseil jëriñ ji sax ñu dénk wàllu mbay xam le ni wàllu production bi ci ngóob ma ñu nga ca téeméer yu jël juróom-ñett fukki ak am na yenn ci acteur ci filière bi gerte gi ñu daal di euh, yooyu kàddu yeyul euh, ci wàllu woowee. mu nekkoon xibaaru suba si ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax Abdou Thiam moo géré woon technique bi <laughs> Aba maa ngi lay nuyu. jaajëf maa ngi lay fay El Hadj Abdou maa ngi lay nuyu ak auditeurs yi nga xam ne ñu déglu.